Thank you. السلام يرسل الرب صالح وقال أنا وقت الجبل مليون جبل وأنا الحمد لله قومه جبل من بداية وأنا عندي جبل أنا كتبت جبل وأنا جبل جبل قسم من ليس ممكن mais nelaw baa nga ko nopp day ba dem ni daal nelaw Najaram, Yakshaka ji program detail se, Yakshaka ji nao, Yakshaka ji nao nao nao, Yakshaka nao nao nao, Yakshaka nao, Yakshaka ji nao nao, Yakshaka ji nao nao, Yakshaka ji nao nao, हमने और को भी बच्चे यदि शुरू कर लिया उनका दोस्तों डॉक्टर है मैं तो मेरा मिलेगा उनको आए जिन्हें धन्यवाद मैं अगर मैं इनको ñan lañ delloo seen jabar yi mais saxaaba yi def ci lool yeneen ay tegu wàcc ne mën ngeen a lekk mën ngeen a naan ba woon bu weex ci biir mooy ba guddi رضي الله عنه قال dana bi mënu ko weex ci biir mënu ko jóg saxaba yi def noonu mënu ko weex ci lan la ci yàlla jóg ak mënu ko jóg ci lan la ci yàlla jóg dina barwaa dina la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey soxnam bu leen ci adi at radiyallahu anhu ne ba laay ji wàccee mais man ngeen lekk man ngeen naan ba wala

حتى يتبين له الخيط الابيض فانزل الله بعد من الحلم فعلموا انه لا يعلم الليل ولا حاجه. ne sauran jirgin sallallahu alaihi wasallam ila yi wace كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يوجهه سهل بن سعد nag mu ne bi mu leen fajir wàcc moo tax moom xamuñ ne guddi gi la julli bu ak bëccëg bi mu ne moo tax dañ daan ut wëñ bu weex ak wëñ bu ñuul takk ko seen tànk foog ne loolu la ci yàlla jublu fekk yàlla ñu ci jublu dia beli aku baca dia bisa jadi lagi aku baca model sebenarnya dia lebih lucu bagi osok dia dia Thank you. رجال كانوا يؤمنون به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن الدين بالمسلمين انه لا يؤذن حتى يتعبد على قاسم القاسم ولم يكن بين اذانهما الا ان يبقى ذاك الذي بدا وفي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ibn Rabi'ah, Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak become Mubarak and not the Bilal ibn Surah Recently the Bilal of Maiki watched it today. Mana, Umana Jang, Jurong Fiki Ayat, Stiket de Bobre, Kamsor ibn Salat, Nanda Sen, Nyari Mabin Jaya, Yere Yere, Watched, Newsland Ticket, Newsland Ticket, maku bi nekk bi nag bu teree mën a xam ci problème bi ba ba am bari ci mu nekk di motee motee salaam بن وليد بن وليد الله حدثنا عبد العزيز بن ابي حزم بن سعيد رضي الله عنه قال كنت اتفقه في اهلي ثم تكون تؤتي من يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة باب قتل الكلب من الصحون وصلاة الفجر حدثنا بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال حرم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة ان كان بين الاذان nodd bi ak julli bi dañ ko nodd bi ak bu ñu paree xamul na ko juróom fukki aaya dañ ko juróom fukki aaya rek soo ñu salaat yi dina ko doon doon doon gàtt lool maanaam xam nga boo loolu sax. sax mooy sallallahu alayhi wa sallam ak saaba yi dokk la leen koor maanaam koor ba ci ñu jot ñu bañ a dokk xoolaat mu ne dafa wutu jur ba mat ba tey solo nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dokk la leen koor maanaam koor daal di ko roy ci loolu ñu ko royee ci loolu ñu dem ci biir léegi bépp seen yokk ñu jukkal leen leen nañ bàyyi jokkale ñu ne ko da ngay jokkale ñu leen man lu mu yéen bind bi ma yàlla bind ak bind bi leen bind bi benn kon am na ku may ànd ñu may daal ñu jox may lekk ñu jox ko ñu koy naan kon ñun ñu may jokkale waaye jokkale ñu war a حدثنا آدم بن ياسين حدثنا آدم بن ياسين حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سحروا ان تسحروا بركه. Dakle, sorumlu. Gereksiz sulaydı. Buna gelen ki Anas bin Malik, Abdullah bin Sulaydı. Buna gelen ki Dedina Anas bin Malik radıyallahu anh. Buna kamer, ona konu yönetimi için ne kadar? رجلين النبي صلى الله عليه وسلم ووقعين لأن مخبر مخبر بركيشي إذا لم يكن الله يبقى بركيشي صلى الله عليه وسلم باب إذا نوى إلى أحد صوم قال ابن القرداء وكان ابن القرداء يقول إنه طعام فإن لا قال فإني صائم من هذا فعلمه من حكى وهو من عباس الشيخ رضي الله عنه حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد بن ابي عبيد عن سلمه بن القعع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليسلم فليصم ومن لم ياكل فلا يؤكل. قلت يقول لما تجي بتشكل دور ايه انا اللي رفعه مو درجه إذا ذكر حدود الله تغنيه لكما يكن يفكر نقول لكم أنما أوكي وبسبيت لكم أوكي فتقول أبو طلحة تدمكو أبو هريرة تدمكو ابن عباس تدمكو فقيدة رضي الله عنهم جميعا تدمكو ونجل لك يعني جلنا نجير النبي صلى الله عليه وسلم yéen bi yëpp ebal na nit dafa demal ci nit ñëpp di si tam xarit la te béy na te képp koo xam ne xëyoon na nekk jàpp nga ko liggéey si bis bi or képp koo xam ne xëyitoon nekk ñu nekk na or waaye loolu nag ci tam xarit la béyoon bi ñu wax loolu